juillet 2022, jour de la Tabaski, mais également date de démarrage officiel de la campagne électorale. Et comme vous le savez, huit listes sont en compétition. Elles auront chacune dans ce journal de la campagne cinq minutes. En temps d'antenne, en ordre de passage et en système de rotation entendu entre le CNRA et les partis politiques. Et je rappelle que ce journal de la campagne est placé sous le contrôle et la supervision du CNRA. Il vous sera présenté ce journal en deux tranches, 19h20 et 20h40. Quatre listes diffusées en première tranche, quatre autres en seconde tranche. Et comme il est d'usage, toutes les premières déclarations ont été enregistrées dans les studios de la RTS. Je m'en vais donc vous livrer la première déclaration, celle de la première liste qui a été tirée au sort, Bok Gisgis Gis Sénégal ci ak bitim ak mag di ziar waa réew mi ñëpp ci tabaski bi ñu dund tey ci jàmm ak salaam ak ci mbokko di baal àq ñëpp di baalu àq ñëpp di indi ñaanu baalu àq sunu coalition bokk gis liggéey bi nga xam ne ni président ab Diop moo ko jiite suñuy pank parti ak yeneen parti lënkuloo ànd tabax boobu coalition di gërëm kilifa diine yëpp ci seen taxawaay ci réew mi gërëm imaam yi nga xam ne ni ñooñu dimbale ba ñu julli ci jàmm ak salaam ca ne ko dina santaane di rafetlu suñu mbokk chrétiens yi ni ñu jaxasoog ñun ci bés boobu yàlla bi moom nguur di ko joxe di ko nangu ci nam ko soobee waxtu mu ko neex mi nga xam ne nii ci wote yi ñu jëm muy tànn ndaw réew ñi ñu togal ci pentum ndaw réew ñi sunu coalition bañ ko taxawale ci ñaar fukk ak juróom yoo xam ne nii dañoo bëggoon jogante ba ñu tànnee ñoo nekkoon fukkeel ak benneel ci ñi ñëw joxe seen kayit yàlla bi nga xam ne mooy tànn nu ko neexee fexe ba ñu jiitu ñëpp njëkk a yembale njëkk a matale moo tax déggu leen ñu coow déggu leen ci lenn borom bi baaxee ñu ba nga xam ne ni coalition bokk gis liggéey mooy benn bi nga xam ne ci mi li naan doublon externe mooy maanaam ñi la joxal parrainage jox ko ñeneen ñun rek ñoo ñu nga xam ne ni amuñ ci kenn ku ñu joxal jox keneen ndaxte loolu la ñu jiitu nekk numéro un moo ñu ko jox du xarañ du mën-mën waaye coobare borom bi la ñu ci yeesal suñu ngërmande ci suñu borom gërëm waa Sénégal yi nga xam ne ni dañu doyloo óolu ñu joxe seen signature ak seen i candidat signal ñu ngir bëgg ñu bokk ci jogante bi ak ñu jël seen alal ak seen xalaat ak seen ñaan defal ñu ko yàlla ba tey bi nga xam ne mooy def lépp moom gudd ko jaay ci doomu aadama yi boo ñu demee ba loterie ne dañuy tànn ci jaarum télé yi ñu war a njëkk a jàll suñu coalition njëkk a génnaat moo tax ubbite campagne bi kaddu yi gën njëkk a dégg ñu jib muy kaddu yi coalition bokk gis-gis liggéey ñi ma yebal ma ñëw toog di wax di ñaan yàlla di leen ñaan yéen waa Sénégal ni loolu amee te muy misaal ngeen firndeel ko ci bésu tànn ba jiiteel ñu ñu jox leen député yoo xam ne ni ay ndaw lañu ay mag lañu borom xel lañu ñu xereñ lañu ñu am yaat ak teggin ñu nitu jàmm ñoo xam ne dundewuñ politique njëlawuñ ko mais Sénégal mooy seen tool mu jaral leen lépp. sunu coalition bi nag boo xoolee ginnaaw nguur gi seen bos te ñuy yor alalu réew mi yëpp nag moom la ko seen bopp. ñooy bi ci gën a mag ci taxawaay ci teew ci département Sénégal yi jur fanweeri département ak juróom-benn am nañ fay candidat benn Benno Bokk Yaakaar gisuma beneen boo xam ne ni am na ko ci li ma jàpp gisaguma do wala déggaguma ko loolu li ko indi mooy liggéey bu set bu ñoom moo tax déggu leen ci xuloo déggu leen ci xiiroo déggu leen ci xaxarante li cool yi bari bari bari ndaxte olof njaag nee na xuloo ba ca teen ba gaañ xamul baag la waaye nag ñi jàpp ne ñoo bëri doole te tëlee tànn ñetti téeméer wala ñeenti téeméeri candidat ñoŋal ko méngale ko ak yoon ba xiiroo bañ cee mën a am ñooñu buñ defoon nit ñun gëm naa ne tey ji coow du am waaye ñu gërëm waa réew mi nga xam ne ni am nañu ràññee xàmmee ba bañ dugg ci guute gi nga xam ne ni jiital nguur ak bëgg-bëgg nguur moo ko naroon indi coow li am ci réew mi nag buñ fàtte ñi yor réew mi bëgg bañ koo bàyyi ci bëggu nguur te mu jaral lu ne ak ñu ko bëgg foqat ni ci yoon wu leen mu jaral leen ko ñu indi coow kon nag ñu ñii nag ñoo ñëw indi leen yoonu jàmm yoonu xam-xam yoonu xereñ yoonu bëgg Sénégal ak bëgg a delloo njukkal Sénégal ma leen di ñaan ngeen jël suñu xob tànn ko mooy bi doom taal ak bu bula te photo Pape nekk ca muy bokk gis-gis liggéey mooy yoonu njëriñu Sénégal jàmmu Sénégal daraja Sénégal ak njëriñu Sénégal mbokk Sénégal loolu mooy kàddu yi te buy coalition bi xam ne booy wër ndaw yu bari am xam-xam ñu ngi ci coalition fees fa teg jigéen ñu baax kaw gaak ñëpp nga ca biir kon bandiraɓe sehilaaɓe sénégal naaɓe allah wiyete laamu kono solo suɓo laamɗo ma suɓa joom gandal baawal joom nafoore joom jam liggotooɗo jiɗɗo nafoore ko wiya dimo ñolata ñaame ko nafoore faɗete dimo ɗum woni ko moƴƴi ɗum woni nafoore ndawu sénégal maa ndi o ngel annda coalition joxñu majorité ñu deferalen sénégal ci jamm ndax te dañ bëgg ñu ñuy xëccool ñëpp ku ci ne buñ sañoon élif la mat la kilifa boo tax luy ñaawteef wax ju ñaaw nekkuñe ca ñuy oote jàmm ak salaam maa ngi yeesal suma ziyaar ci tur coalition bi turu ndaw ñeeg mag ñeeg ñëpp di rafetlu ñu dem ci campagne jàmm ak salaam ki gën ci askan wi yàlla jiital leen ñu gañe taxawal ñu Dans le programme qui nous est euh, parvenu, Bokou Gisgis Ligue fera demain une déclaration enregistrée depuis la permanence de Boku Gisgis sur la VDN. Après Bokou Gisgis Ligue, nous passons à la deuxième liste dans l'ordre de passage conclu avec le CNRA. La liste de Benno Boku Yakar, toujours dans une déclaration enregistrée dans les studios de la RTS. asalaamaaleykum euh, mbokki Sénégal asalaamaaleykum euh, mbokki diaspora maa ngi leen di ziare ci bésu tabaski bi di ñaan yàlla defal nu jàmm euh, saxal fi jàmm ñu ngi aussi ñaan yàlla may ñu nawet bu barkeel ginnaaw sunu mbokk yu bari ci mbay la ñuy dunde mbokk yi tey nag ci la ñuy door campagne électorale bi nga xam ne moo ñuy yóbbu ci élection

Euh, du nu bokk ni nuy xalaate ndax Sénégal benn bopp la te politique mënu koo xar ñaar ñun li li ñuy ñaan li su benn bokk yaakaar mooy mu doon campagne ñu xel bañ a doon campagne ñu xeex ñu waxtaane li nga xam ne mooy ni yitteel sunu askan nu waxtaane ni nu mën a gën a jàppale sunu jigéen ñi jàmbaaru jigéen ñi jigéen ñi jàmbaar la nu nu nuy jàppale suñu ndaw ñi ba nu mën a am xëy nu ñuy jàppalee liggéeykat yi béykat yi artisan yi euh, nappkat yi nu fexe daal boo waxtaanee luy jëmale sunu réew kanam maa ngi nuyu nag aussi suma mbokk yi nga xam ne ñoo bokk liste bi waa Benno Bokk Yaakaar candidat Benno Bokk Yaakaar yi ñi ci liste nationale bi ñi ci liste départementale bi te fàttewuma aussi sunu kandida yi nga xam ne ñoo ne ci jaspora bi euh, ci fan yi di ñëw euh, dinañu waxtaanee li nga xam ne mooy liggéey bi am solo bi sunu président coalition euh, def ci réew mi te foo gis foo dem gis ko tàmbale ko fii ci ndakaaru ak euh, TER bi nga xam ne soppi na dundinu junniy junni junni waa Dakar ak ñi dëkk ci banlieue bi ba ci BRT bi nga xam ne euh, ci la ñuy liggéey président liggéeyam foo dem ci Sénégal gis ko muy ba ci Ila Morphil ba ci Kalunaay ca Casamance boo yéegee ci pont gambi bi wàcc fa nga xam ne ñu bari fa lañ daan fanaan buñ buggaan dem Casamance pont wu Rosso pont wu Marsassoum jigéen ñi jàppale na leen bu baax a baax a baax ci seen liggéey ak ndaw ñi programme mu xëyu ndaw ñi nga xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba suñu ndaw ñi am formation am liggéey mën a tedd fii ci seen réew mbokk yi nag xam ngeen ne ci ñaari at yi ñu génn jamono xat na ndax corona ak guerre bi nga xam ne am na Ukraine euh, jamono nag fépp la xate du Sénégal rek àddina wërngël képp waaye président Macky Sall indi ci aussi euh, def ci liggéey wu am solo pour que njëg yi mu mën koo téye njëgu yi nga xam ne moom la nuy dunde muy ceeb muy diwlin muy farin bay seet def na ci ñeen fukki milliards ak ñett pour téye njëg yooyu jàppale na aussi euh, ñi nga xam ne vraiment seen doole bariwul jabot ji nga xam ne dafa soxla ndimbal euh, def na lu tolloog euh, ñeen fukki milliards ak ñett ci li naan trace cash transfer maanaam yónnee ko ci téléphone yi ñu jot ko loolu lépp pour jàppale njaboot gi Sénégal it président def na ci liggéey bu am solo ci wàllu électricité indi nañ fii liñ naan toolu courant daanaka ci Sénégal eh, lañ ko njëkk a gisee mu def lu tolloog eh, juróom juróomi téeméeri milliards pour jàppale njëgu électricité bi eh, ba nga xam ne bii bokk nañ ci réewu Afrique yi nga xam ne ñoo gën a bëri courant waaye liggéey wi it day xal di continuer mënoon nañ limite li mu jot a def

président Macky Sall pour moi, am majorité bu yaatu euh, ci élection au 31 juillet yi bu weer wi déwé bu ko défé mu continuer ligéyam ligéy wi nga xamné des lim nañu ko euh, dinañu ko waxtaanee euh, ci fan yi nga xamné mom lañuy né ci campagne bi ndax président de la république suñu président wu coalition fo dem teg ci sa Et dans son planning de mai 11 juillet 2022, Beno Bokuyakar quittera Dakar pour euh, Touba avec un meeting euh, d'ouverture à Mbake, les étapes de Linger, Dara, Chamen, Koki, Louga, Pal et Saint-Louis sont aussi dans le programme de Beno Bokuyakar. Troisième liste à passer, sa déclaration dans cette première tranche du journal de la campagne électorale la grande coalition Wallou-Sénégal. Assalamu alaikum, beaucoup Sénégal sunu mbokk yi nekk ci biir réew ak ñi nga diaspora bi la man Mamadou mandataire national de la grande coalition Wallou Sénégal maa et fii ci président Maître Abdoulaye Wad. nga xam si président coalition bi di tête de liste bi di nuyu ci coalition boobu nga PDS moko composé ak Tekki ak ACT ak LD ak Tabax ak euh, nekkal fi askan wi ak syndicat bu ñoom alsandooy les verts ak waa bamtaare ak yeneen ñu ci bokk ñëw tey jii fii di leen nuyu te di leen euh, déwénal ci tabaski gi nga xam ne si moom lañu yendoo dund tey di ñaan yàlla yal na yàlla defal ñu bokk fekke déwén président coalition bi dafa jëloon ay ndaw yónni leen ñu dem wëral ko kilifa diine yëpp fan yi ñu wër kilifa diine dem ba euh, jàngu bi recevoir nu ñu wax leen ñu ñaan ci réew mi indil ñu ci daal mi ngi leen di gërëm di leen sant ci dal googu ñu dal ay ndawam ak li nga xam ne si lim leen doon ñaante gis nañ ci dal ci Sénégal loolu yëpp nag li xewoon Sénégal fan yi Sénégal mi ngi war a def élection 31 juillet te duggul ci woon ci dal loolu yëpp li ko indi mooy rupture de confiance bi nga xam ne si dafa am diggante wu gi ak gouvernement bi ndax ñoom ñoo romp loolu da xam ni président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade dañ leen ko laajoon ñoom ñëpp ñu def ko ba jël un ministre de l' intérieur neutre bu bokkul ci parti mu teg di organiser élection yi gouvernement bi bañ na loolu tegal ñu fi koo xam ne si kenn d'accord ci loolu moo tax gis ngeen lépp li xam ne si xew na suñu diggante parrainage bi nekk na lu nga xam ne si dañ cee salfaañe suñuy droit ak suñuy euh, yelleef boo passé parrainage bi nga dem ci liste yi coow yiñ ci am yëpp a ngi ci liberté de yi nga xam ne si Sénégal yëpp amoon nañ ko constitution bi Sénégal may ko nit ñi loolu yëpp gouvernement bi salfaane ko ba tey jii gis ngeen ni état de droit bi dafa nërmeelu loolu moo tax situation bi nekk ci Sénégal loolu nag bu fekkente ni dañ cee bëgg a taxaw bëgg koo régler dañuy fexe ba woteel la grande coalition wàllu Sénégal ci élection yi ñëw bu ko defee ñu am majorité assemblée nationale buñ ko amee ndax lépp li nga xam ne si neexul Sénégal tey te mu am fi benn Bokk Yaakaar mi ngi ko defee ci majorité bi nga xam ne si moo nekk assemblée nationale foofu la ko yóbbu di salfaañe lépp li nga xam ne si mooy droit sénégalais yi ñu defal leen ko te loolu moo tax tey Sénégal nekk ci guto gi mu nekk. Sénégalais Sénégalais la réputation de notre pays qui était un pays démocratique qui était un pays de paix qui était un pays où régnait la concorde sociale a été rompue. Nous étions habitués à faire des élections paisibles parce que nous avions un code électoral consensuel que nous avons obtenu grâce à la médiation des institutions internationales, dont le NDI. Le régime du Bénin Bokyakar a bafoué ce consensus en introduisant à l'Assemblée nationale de nouvelles lois, ce qui fait aujourd'hui la rupture. En nous imposant aussi un ministre de l'Intérieur partisan. Ceci a été une rupture de consensus qui a été établie au Sénégal depuis le régime du président Diouf, depuis le régime du président Ouad. On est habitué au Sénégal à avoir des élections organisées par une autorité neutre. Le fichier électoral est aussi un point de rupture. Aucun parti de l'opposition n'en dispose. C'est une nébuleuse que nous demandons, nous réclamons, nous n'avons pas. Le système de parrainage, nous l'avons décrié, mais malgré tout, le régime du Beno Bokoyakar nous l'a imposé. Tout ceci, ce sont des forcings qu'il organise. Des lois scélérates qui excluent les citoyens en les privant de leur droit de vote, comme on a fait en rayant sur les listes Khalifa Sall et notre frère Karim Maïsawad. Tout ceci montre donc que le régime de Benoît Bokyakar rompt l'ensemble des consensus qu'il y avait au Sénégal. Et pire, pour couronner tout cela, le régime de Benoît Bokyakar pousse l'État du Sénégal à ne plus respecter sa signature internationale en refusant d'appliquer les décisions prises par les juridictions supranationales. Ce qu'on a vu dans l'affaire Khalifa dans l'affaire de Karim et dernièrement avec les parrainages avec la CDAO. Si l'État arrive à ses fins, c'est parce qu'il a une majorité mécanique qui le lui fait passer à l'Assemblée nationale. Nous vous demandons donc de voter massivement pour notre coalition. Nous allons alors rétablir l'état de droit et l'ensemble des acquis démocratiques. Je vous remercie. La grande coalition Wallo-Sénégal a prévu dans son planning de demain une déclaration qui vous sera livrée depuis les studios de la RTS. À présent, la coalition Natangé Askanui en quatrième position dans l'ordre de passage. Mais avant de vous livrer leur déclaration, je vous résume ce délibéré du CNRA relatif à la diffusion par la RTS du temps d'antenne de la coalition Natangé Askanui considérant le décret numéro 2022 13 17 du 1er juillet 2022, considérant les termes de la circulaire numéro 0001 du CNRA en date du 27 juin 2022. Le collège du CNRA, après avoir délibéré ce 9 juillet 2022, décide que l'équipe de la RTS est à la disposition du président Monsieur Mohamed Diallo et des mandataires de la coalition dont la liste a été transmise dans les délais à la RTS avec ampliation au CNRA. Voici donc la déclaration validée par le CNRA de la coalition Natangé Askanui. Sénégalais, Sénégalais, en ma qualité de président de la coalition Natangé Askanbi, Ma fi ñewoon pour nuyu leen kenn ku ci nekk seen tour ak seen sant di leen ziyaara ci bés bu màgg bi ne di xamal ni coalition bi ñu am ànd ceeg militant ak investi sur l'étendue du territoire national et au niveau de la diaspora Nous ngi leen di sant kenn ku ci nekk ci tour ak seen sant di investi di suñu mandataires di gërëm suñu militants yi ci liggéey bi def sur l'étendue du territoire national et au niveau de la diaspora coalition Natangé askan bi ci ubbité campagne bi ñi ngi ñëw am lu bokk ak la nouvelle génération muy cette génération montante muy ndaw yuñ am yaakaar ci réew mi étudiant à étudiants yi nek université Cheikh Anta Diop nous, nekk université wu Thiès université Assane Sek de Ziguinchor université wu Bombay ak université virtuelle yi nous bu ñu egg à l'Assemblée nationale ñun coalition Naatangué Askan bi dinañu proposer au gouvernement ñu doubler leen bourses, bourse té ñëpp xam nañ ni étudiants yi ñoy yaakaaru ëllëgu réew mi ba légui la coalition Naatangué Askan bi nous sommes à l'Assemblée nationale Nous proposer en même temps au gouvernement ngir ndaw nek chip ci l'école moy diganté CP ba terminal sen jang buñ ko fayati mu nek ci charge état bi ci proposition yi ba légui coalition natangé askan bi ci yakar guñu am ci la nouvelle génération la coalition natangé askan bi dinañu proposé waat gouvernement bi beneen taxawaay bu bees mooy lu ñuy wax dañu bëgg tëggaat Sénégal gu bees tëggaat Sénégal gu bees googu nag mooy ba léegi yaakaar gi ñu am ci ndaw ñi dinañu wax au gouvernement ngir ñoom seen wàllu bopp lépp loo xamante ni mbirum coppite la te mu war a jàll ci mbirum ndaw ñi muy enseignement général wala mu war a nekk enseignement professionnel ñu jël loolu yëpp proposer ko au gouvernement ngir ñu mën a taxawu ndaw ñi loolu nag dafa am li mu àndal mooy ñu mën a teel a ràññee teel a xàmme xam ne Sénégal bi ñu am dix neuf cent soixante ba tey jii nii dafa am lu ñu nawee mooy worma mooy cër ak jox cër yit say kilifa looloo tax nag ndaw ñi sax ñi ngi koy def waaye fàttali rek dafa bokk it ci loo xam ni foog ñu koy xam suñu réew mooy képp koo xamante ne ndaw nga ma partagé waxtaan gi nii ak ñoom mooy képp koo xam ni dugg nga ci bus muy Njaga ndiay muy Tata wala muy Carapit nga daje faak koo xam ni personne troisième âge la nga jóg may ko mu toog ndaxte noonu la ñu yàgg nawee Sénégal képp koo xam ni daje nga sa moromu kilifa muy aw laago war a jéggib tali Nous leçon la nouvelle génération nous mën accompagner dans ce sens Nous dans les xaar nous cette nouvelle génération. loolu dafa nekk nous nous fait. ay nous mais ñaan nous bu nous des fanit nous nous ñu Sénégal réew Sénégal nous na réew de faire. Nous guñ fi sommes nañ koy quoi, nañ éducation Sénégal warna nek nekk ñoo depuis 1958 Sénégal bokkon na ci réew yo xamanteni dañ ko doon citer en exemple ci référence ci école une fi amone yu mel école William Ponty pourquoi pas tey Sénégal gi ñu gisoon démb ak barki demb ñu gisaat Sénégal gu mel nonu té ñun wa coalition naataange askan bi bëss bu amé une majorité à l'Assemblée nationale loolu lañ nar présenter loolu lañ nar proposer aussi au gouvernement ci loolu it ñi ngi gëna xamal askanu Sénégal

wa taala wa Dans le planning euh, remis à la RTS et au CNRA, la coalition Natangué Askanui vous réserve demain une déclaration. Voilà, mesdames et messieurs, pour la première tranche du journal de la campagne. On se retrouve à 20h40 pour la seconde tranche. Et dans l'ordre de diffusion retenu, vous aurez donc les listes de Yewi Askanui, les serviteurs MPR, Buntubi et Art Sénégal. Et je rappelle que ce journal est placé sous le contrôle et la supervision du CNRA. Merci donc d'avoir suivi et à 20h40.